سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وإسلام إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي سير شان يوتيوب بي دي نجاسان تي في نيجي لاندي دالال تي حضره بو تيد بو سيل بي تي نجاسان دي نجاسان تي كبارو خليفه العام لي طريقه القدريه الشيخ البكاي ابن الشيخ البكاي ابن الشيخ محمد كنت دي فاسيينه اند اك ci rubrique bii nga xam ni moom lañ leen tànnal ci seen chaîne bii di Ndiassane TV muy am ayubis bu ne ñu tuddee ko jaar-jaar jaar-jaar boo ko déggee mooy ñenn ci góoru yàlla yi nga xam ni jaaroon nañ fi bàyyi fi loo xam ni tey ba àddunay tukki kenn du ko fàtte ñu leen di indil seen xarbaax yooyu ñu fi defoon waaye seen jaar ak seen jàngale ngir lan njaboot nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw mën roy ci yooyu jaar-jaar ba mën ca defaroo ci biir loolu ñu indil leen góor bu baax bu nuy wax sëriñ Mohamed Bekkaay kunt sëriñ Mohamed Bekkaay mu mel ni boo déggee tur bi rek am na lu mu lay jox sëriñ Mohamed Bekkaay moom mooy doomu Cheikh al Bekkaay Cheikh al Bekkaay moo njëkk a toog ci xilaafa Cheikh bu Mohamed Kunta keroog bi nga xamee ni góor yàlla ba dëdd na di Cheikh bu Kunta Cheikh al Bekkaay ko wuutu ci xilaafaam en 1914 moo fi nekk ba 1929 muy fukki at ak juróom yoo xam ni téye woon na dëkk bi ci ngor ci diine ci lislaam Cheikh Al moomu moo jël soxna su baax ñu koy wax soxna Astu Fall soxna Astu Fall Bambado cilmaxa nga xam ni ñoom ñi ngi bàyyi ko ci dammel e, Birima Fatma Thioub ñooñu nga xam ni tey ñoom ñoo nekkoon ay gelawaar yu nekkoon ci kajoor Cheikh Al foofu la jël soxna soxna soosu ñu koy wax soxna Astou Fall soxna moom mooy wayjur bu jigéen bu Serigne Mohamed Becaye mel ni bi mu gënee àddina ci ñaari góor yooyu sekk ko Serigne Mohamed Becaye comme ni ndaw diine yëpp di def comme ni nga xam ni noonu la ay baayam ay maamam defoon fa tabaarakallaahu moom itam noonu rek la ko ay wayjuram taxawoo Cheikh al lu tuuti la sëriñ Mohamed dund ci kanamam waaye soxna si nga xam ni moom mooy soxna astufaal di waajuram moom moo taxawu doomam jii di sëriñ Mohamed Bekaay ci tout tànkam mu yóbbu ko mu dem jàngi mu njëkk nag fi nga xam ni mooy gànnaar jàng fa alquran jàng fa téere fiq yi jàng fa yeneen fu noonu xam-xam ba peg ko bi mu ñëwee dellu siwaat fii nga xam ni mooy Sénégal ki nga xam ni mooy soxna Astou Fall di woy juram bàyyiwu ko waaye daa jàpp ci loxoom fépp fu mu dégg ni boroom xam-xam mi ngi fa mu yóbbu fa góor gi nga xam ni moom mooy sëriñ Mohamed Bekkaay ngir lan mu yóbbu wala yokk ab xam-xamam ci lay dox ba dem Kaolack doon fa seet ab càmmiñam ku ñuy wax Sidi Candeela Fall bi mu ko fa fekkee mu waxtaan ak moom waaye ci biir waxtaan ba ci la xamé ni góoru yàlla bu baax bu ñu wax Cheikh Ibrahima nias mi ngi ci bërepp bi nga xamni mom modi kawla té mbax sori wu ci la doxonto ci mom ba xamal ko ni kat dama nekk ci dolli sama xam-xamu njabot waye de gis na ni fi xam-xam mi ngi fi waye dama lay bëgg dénk xale bi ak rakam muy Serigne bekay mi tay doon khalifatul am bi tariqatul qadriya ngir nga motali sen sen njàng cheikhal Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nangul ko loolu tam daal di jël Serigne Mohamed Bekkaay ridwanullahi alayhi ak rakkam di Cheikh Bekkaay mii tey def ci ñoom itam xam-xam waaye dolli ci ñoom xam-xam dolli ci ñoom li nga xam ne moom moo di ak tarbiya al islamiya al asasiya mooy éducation de base d'accord mooy éducation de base bi nga xam ni mom lañ doon won ci mam ya mom lañ doon won ci magña ci salafu salih def ci ñom lolu waye bi nga xamé ni Cheikh mohammed bekay jàng na fofu limu fa wara jàng ci ay fànni xam-xam ci la fa bayiko daldi nak jup ngir lan di jéem def xam-xam bi nga xamni mo nek ci mom ci ay nit ñi nga xamni lool la parce que li yonti bi alayhi salatu wassalam wax moom moo ci nekk xayrukum man taallama alquran wa allama ki gën ci yéen mooy ki nga xam ni dafa jàngal alquran waaye yamu ca mu di ko jàngale sëñ Maxamed Bekkaay daal nag jël yitteem yépp defaat ko ci dolli xam-xam waaye defaat ko ci yaatal xam defaat ko ci def ay boroomi xam-xam di leen créer ko mu jàngal nag maas bu baree bari ci ay njabooti kunta ci ay njabooti taalibe ak lu ci aju sëñ Maxamed Bekkaay nekkoon cees nekkoon ci bërëb boobu noonu tabarakallahu bi nga xamee nag ni Sëriñ Sidi Yaxya ñëw na doon xalifa way juróom Cheikh bu Mohamed Kunta yaatal nag bi nga xam ne mooy jumaa ji fi nekkoon jàkk ji fi nekkoon yaatal ko waaye daal yaatal tam xam-xam ak tarbiya ci la neekat looy jéggaane lu ne dafa fekk sa dëkk wala sa njaboot daf ko amul bi nga xamee ni jumaa ji ubbi nañ ko mu jël sëriñ Mohamed Bekkaay ne ko sax xam-xam doy nanu sa ragal yàlla doy nanu waaye itam euh, fa tabarakallah teg nga sa tànk faka mag ña tegoon ci la jëlee jumaa ji teg ko ci loxoom jël itam responsabilité yu rëy a rëy bàyyi ko ci loxoom sëñ Mohamed Bekkaay mën nañ ni rôle qaadi yi la doon joué ci li nga xam ne mooy wasral kunti yi قاضي موي اون جوج رول بي مودون جوي موم لا نيو واخ مون نيو واخ ني سيغ محمد بكاي رول ماجسترا بوبو لا دون لا دون جوي تي كير جي تبارك الله اي بايام ديغلون كو اي بايام فونكون كو لول غير خام خام وايي دام رجال يالا وايي تام يار ديغا خامني اك تيغين اك كارسا جي نيك تي موم loolu boo koy xool mën nga ko gis ci vidéo yi nga xam ni yaa ngi koy gis di ko seetaan ci ndaw ñi nga xam ni jotuñu koo xam da ngay gis ni ku amoon kersa la euh, te yont bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, lépp yiw mi ngi ci li nga xam ni moom mooy mooy kersa waaye beneen bi ci des mooy yar gi nekkoon ci ci moom cheikh mi ñu koy jàngal nee na kun ëpp na man chita waktasib adaba yurnika madmuna wanin nasabi nit koo mënti doon te amoo lii yar xam-xam boo mën a doon boo mën a am te àndu ak yar daanaka kooku ku la mënti jur day mujj doon ba an mansuur muy doon pënd boo xam ni du mujj fu dul wuri kon li am solo te am solo ñu mën koo jàngee ci ak personnalité mooy ba mu amee xam-xam daf ko boole woon ak ragal yàlla ak màndu waaye daf ko boole woon ak yar ak teggin ndaxte fexeel ba sa jëmmoo di yar nit ki lu jiitu sa kàddu di yar nit ki kon moom ridwanullahi alayhi sëriñ Mohamed Bekkaay ku nekk xam na ni jëmmam rek boo ko mosaana xool da ngay yaru ndax boo mosaana dem di jàngi ci moom ci ñi nga xam ni durus lu nañu ci moom lenn ci ay téere daañu gis ni ku amoon ni teggin la ku amoon ni yar la waaye boo demoon ci moom li jiitu ngay jël ci moom ak xam bu dee bu dee nite nga lu jiitu ngay jël ci xamam waaye ci yaram nga ngay njëkk jël la imaamu euh, euh, la imaam Malik la ko yaay ja waxoon rek ci ba mu ko tàggoon ni day jëli ca sëriñ sa ab njàng sëriñam ba ak njàng mu ne ko balaa ngaa jël ci ak yaram balaa ngaa jël ci xamam na nga jël ci ak yaram loolu rek moom moo feeñ ci moom fa tabaarakallaahu mu jiite woon nag jumaa ji yoroon ko waaye itam responsabilité yu bari nekkoon ci loxoom lu miras jaxasoo jaxasoo jaxasoo won fa tabarakallah bu mosaan tok seigne sëñ Mahad Bekaay dana ko faren fatte motax bay bàyyi bu Mouhamed radiwanullahi alayhi bi fi Cheikh Sidi yahya jóge mu daal di jëlaat moom it ji teg ko ci loxom ne ko sama mag ja kóolute gu ci yow bu ni tollu amat na ko ci yow sama dom nga waye tam sama sama sama doylo na sax xam-xam fa tabarakallah mu daal di jël ji tegaat ko ci loxoom waaye jëlaatam tam responsabilité yooyu tegaat ko ci loxoom sëñ Mame Becaye mën nañ wax ni bibliothèque la woon bu doon dund Barham dañ ko mës a laaj ne ko kan nga jàpp ne Sénégal moo fi ëpp xam-xam mu ne su ma doon wax ku fi ëpp xam-xam ci Sénégal dama naan Serigne Mohamed Becaye Kounta la bu Njaasaan waaye ñoom seen xam-xam ragal yàlla moom moo ko lal moom moo tax doo leen dégg ci rajo yi doo leen gis ci délai bëgguñu yi siiw ndax dañoo mandu fa tabarakallah moom moo lal seen xam-xam te it ragal yàlla rek moom lañ jiital te yàlla moo ko woon wa taqullah wa yuallimukumullah kon ki moom mooy Cheikh mohammed Becaye amoon xam-xam boo xam ni kenn du ko contesté ci xam-xamu zahir ak ci xam-xamu batin bi fi arab yi ñëwoon bokk na ci buuru màkka ba imaamu màkka bi bimu ñëwé ñëwee xitaab bi def discours bimu def mom ak Serigne mohammed bekkay mom ak Serigne mohammed Bouna radhiyallahu alayhi defe na ni kérok nar ba dafa muju jël seen discours yi diko fon fóon ne xamul won fi nga xamné moy mooy Soudan ñu amé fasaha ak ñu amé xam-xam ak ñu amé ak gëstu bu tollu ni amna fi koku moy Cheikh mohammed bekkay radhiyallahu alayhi donon imam bu Njaasaan ci kaw souf waaye lépp la barxam waxoon rek moom moo ci nekk mooy xam-xamam ñett dañ ko dañ ko dañ koo sekkoon mooy màndu mooy ragal yàlla mooy yar te loolu boo ko génnee ci boroom xam-xam dara dara desatu ci mu mel ni bokkul woon ak ñi Shaafi yi doon wax ni moytul moytul a nekk sondeel sondeel da jikkoom moom moo di di leeralal nit ñi waaye di lakk boppam mu mel ni li luqmaanul xakim waxoon dalu ko mooy nga moytoo yor jikkoy sondeel yow borom xam-xam bi borom xam-xam bi warul mën a yor jikkoy sondeel mu ne ko jikkoy sondeel mooy lan mooy ki nga xam ni day leeral boppam wala day leeral nit ñi di lakk boppam kon fa tabaarakallaahu kooku ci seen rubrique bii di jaar-jaar góor googu di Cheikh Mouhamed Becaye yal na nu ko yàlla fayal mi ngi nekkoon nag njaasaan gane àddina en 1925 génn àddina génn àddina en 2011 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله